solo ah. waaw barkeelu jeex. waaw day sensibiliser moom Usabe. waaw vraiment. da ciy am solo. dañoo commencé. on a vu.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 ndax ñëpp xam nañ ne feebar bi nga xamante ni moom moo fi nekk di coronavirus mu nekk feebar boo xamante ni dafa lëmba àdduna rëmba réew mi di ñaan yàlla rek ah mu jóge fekk jàmm ak dëkk yi nga xamante ni instant bii nii wax dëgg yàlla domine na di ñaan yàlla rek yàlla yàlla musal ñu ci ndax ab balaa la boo xamante ni wax dëgg yàlla fépp la laal waaw di jaarewaat yi nga xam ñi nga xamante ni instant bii nii am nañ ay moor ndax nee naa leen Sénégal da gars yi doon xool te gis nañu am nañ ñaari dese di ñaan yàlla rek mu yem feeg jàmm ak salaam leen dëkk yi tamit ñu ñaan yàlla dese bañ faa am tey nag mi ngi nii ndax euh, nettali ci làmmiñu borom la dàkkee mu nekk mbër boo xam te ne ñëpp ko ndaw euh, mais Ousin ji def distance bi tuuti daa ah. waaw da ciy baax Ousin mm-hmm. distance bi tuuti ñu respecté règle bi tuuti ndax yow yaa mm-hmm. sensibiliser waaw waaw wax dëgg de mm-hmm. euh, Basirou dañ koy jox ah, mu nuyoo am ñu bàyyi ko tamit mu waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy coronavirus bi benn deux secondes. Mm-hmm. ndax porteur de voix la te gis nañ ko day sensibiliser mm-hmm. Ouza maa ngi lay nuyu. waaw waaw soxna Fatma maa ngi lay fay euh, ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci Yonent bi euh, gërëm sama ñaari waajur sant Serigne Touba bu wér. sant sama sëriñ sëriñ Maxtar Mbacke bu sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. Mm-hmm. di la gërëm tamit si invitation bi. vraiment yow moom ku ñàkk ki ñaan nga yàgg sa caméraman bi quoi vraiment di nuyu tamit mhm. Mhm. ne moom mooy coronavirus bi. Mhm. sa mbër yëpp mën nañu wax mbër yëpp ñu ngi sensibiliser. Ouza mi ngi sensibiliser coronavirus bi nan nga. nii jaaxal si àddina euh, ni moom moo sàkk jàmm ñi moo ñu moom moom moom euh, kenn ëppal ko si dara su ko neexoon tey tey mujj ko fi ñoo koy ñaan daal ci barki Cheikhul Khadim yàlla na ko fi jëlee lu mu gën a gaaw man dafee ma nekk ci daara ji ci kafe gi daanaka gars moom balaa kenn di ñëw moom dama lay wax gel bi nga lal <laughs> waaw man moom vraiment maa ngi njëkk gis sama bopp sax entraînement yi tamit gis nga fajar gi laay dem man kese maa dem entraîné ji vraiment ñoo ngi ñaan daal suñu borom euh, saafara lépp daal parce que jaaxal na ñëpp ak couvre-feu bi mhm. daanaka man 19 heures ma dugg ah, su ma segee café waaw nit moom looy kii dañ ciy jiite quoi vraiment. Ah, waaw kuurufay waaw kuurufay liif yi laalagu la. waaw non man xiir gi dalagu ma. Ah. waaw liif yi liif yi dalagu ma de. Ah. waaw liif yi moom seeni i xiir yooyu ñu yore. dalagu ma de moo tax damay teel tëdd 5 7 19 fii laay nekk di YouTube bi ba 10 heures ma tëdd. yow géej dem géej fajar gi xam nga dem di liggéey café gi nag. Mm. waaw vraiment. am na solo kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy Ouza 2. Mm-hmm. mu nekk écurie nag boo écurie Fass la nekkoon. Mm-hmm. mais ñëpp a gis nañ ne ko moo ko ber sa daara. Mm-hmm. Papa Sow moom moo ko ber daaraam. Ouza fekk ko fa muy jàmbaar wrestling académie. académie waaw dinañ ci ñëw léegi. Ouza euh, tey boo mu doon wax yaay kan lan nga may wax. waaw man Ouza numéro 2 ñu naan ma Sëñ Xadim. ñu dem ma borom jumaa ji. <laughs> maa ngi dëgg juddoo Medina. ñëw màggee fii parcelle mais bi ma jógee Medina maa ngi am ay 4 ans yooyu. waaw vraiment si li ma xam yëpp nag 24 amee parcelle. unité 24. daa màng nag moo tax ñu bëgg làmb parce que bi ñuy nekk fii ak ay doom ñoom Paul ñoom Léon ñun ñoo nekk ay tout tànk doon leen teel seen cumukaay ñu dem ay mbapat di bëri xam nga. ci laa demee ne ba xam ñoom Ousa ñoom Papa dem nekk ñoom vraiment ñoom nag sooy seet ñoom ma jàngal bëri ñoom euh, doon wax rek soo fi ne ñoom Modou Lo ñoom Papa Sow foog nga tudd parce que dama dama marqué sama empreinte ci mbapat waaw fii parcelle vraiment li mu fi def mbapat moom nekkul li may wax sax mais ñi xam ne li may wax dëgg wala dëgg mhm. waaw mbapat moom su fekkoon ay drapeau moom vraiment mënuma ko jeexal moom mhm. waaw vraiment sa enfance nga defee ko Médina waaw boobu nag ay 4 ans laa ma xaw moon dara mhm. mais bi ma ñëwee fii laa màggee fii laa màggee si Inter 24 parcelle lan moo lay indi fii Inter 24 fii waaw su ma nijaay moo ñëw jënd fii kër ñëw taxu si fii quoi ak suma ñoom maam xam nga ak suma ñaay si yaay nga xam dafa gaañu yàlla na ko suñu borom yërëm xëy ko àjjana fii laa xam quoi man 24 rek laa xam waaw man moom 24 ak Parcelles Assainies 1 ba 26 nag vraiment nga jógee Medina mhm. fan la la fekkoon fan na ma Medina ba nga fay jógee mhm. ci lan nga nekkoon da nga doon jàng wala yaa ngi doon jàng école wala daara wala non boobu xamewu ma waaw boobu xamewu ma parce que 4 ans mënoo ko xam di xamee mhm. waaw boobu xamewu bi may ñëwee fii daal laay soog a xamee waaw bi mu ñëwee village boo ko xamee. Mhm. waaw vraiment. nga nga sa enfance fii nga xamante ni. moom mooy mhm. parcelle. waaw eh, est-ce que mën nañoo xam ne carrément tey instant bi parcelle. Mhm. Euh, ba nga fi ñëwee nii. Euh, après yow lan nga def sa enfance ba nga mottalee fii sa enfance. lan waaw euh, bi ma ñëwee fii parcelle. après dem ba mu màgg di nekk ci liggéey naa menuisier xam nga liggéey naa menuisier mais dem ba ci biir bi ñu ba muy liggéey menuisier ba def ci ay deux ans trois ans su ma benn xarit patron ñëw yónni ma ay bant quoi ma bañ. boobu maa ngi nekk xale nag mu ne def mooy dóor ma ne ko non bu ma dóor de mu jàpp jël bant bi di ma ko dóor ma ne ko dama lay daaneel mag nga de li muy jàpp dóor ma jàpp ko botti ko ndeysaan toog si kawam xam naa moo tax suma xel bi nekkul ci menuisier xaw ma dara ku dóor sa patron moom defe doo xam dara boobu maa ngi am xam naa ay ay 17 ans ay 17 ans 17 ans waaw waaw jàngee ko waaw jàng na école dem ba CM2 dem jàng na école dem ba cm parce que avant lamb dama nu football football naa équipe bi euh, maa ngi ñu naan ko njëlbeen. football naa fi minime quoi football naa fi minime man ay lii la football trop gaawoon. mais lamb moom maa nga comme ñëw dëkk ak moom foog nga bëgg lamb def fi njëkkoon def benn mbapat Ousa ñëw fi. mu mm. gis Ousa ndeysaan muy jàmbar neex ma trop vraiment nekk ndaanaan boo xamante ne ma gis ko ma ne waa ji daal ah, neex na moom topp leen ba station Dior di seen ñu dàq ma. ci laa leen toppee xam ñoom Papa Sow di leen tarbiye vraiment ba xam làmb nag vraiment waaw. làmb moom mooy yàq sa jàng. waaw jàng école ba yem classe CM2. CM2 waaw te ñëpp xam nañ ni. Mhm. yow tout le temps. Mhm. dañ naan moom nitu daara la. ndeysaan jaar nga daara. waaw jaaruma daara waaye nag damaa nekkoon nekk tout tànk di nekk ci suñu koñ fii dafa amoon daara Baye fal waa kuréelu samfal yi léegi ñoom ñun bi comme dañu nekk ay tout tànk ku mel ni ñoom Abdou Sakour ñoom xam nga ñoom Massamba ñoom Arama Ndiaye ñoom Moustapha Jonn nga xam ne tey ñoo sanc fii xam nga ñoom Karase xam nga ñoom ñoo tax daal ñu xam tur yàlla bi ma nekk xale nekk seen biir di xool ni ñuy defaree café moom mooy neex mais nag damaa judd ci yoonu Sëñ Tuubaa bi parce que sama maam bu jigéen sëñ Abdou Khadir Mbacke mooy sëriñam mm-hmm. waaw am na ñu bari ñoo xam soit seen papa du d'accord wala seen yaay du d'accord yow ne nga làmb euh, sa jàng làmb moo ko yàq yow tey euh, ba nga commencé dugg si làmb mhm. sa parents yi nan lañ ko jëlee waaw euh, neexuloo noonu parce que dama doon football mais bi ma demee jël saako job indi ko dem yoof yoof musuma dem naa fa mais musuma fa daanu quoi dem fa jël fa ay saako coob indi ko ba may soog a ñëw nag moom ak ba ndeysaan ak Mamor ñoo fugg bunt kër gi fëgg leen xam nga yow leen ceeb bi ñëw na xaarim jël na ceeb bi xam nga wax rek xam nga nit looy wax ci àddina rek na la suñu borom tim parce que àddina tëraay ba mel muy lépp billaahi damay wax léeg-léeg sax gars yi di reetaan mais lu wér barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke sëriñ bi daf ma dimbali man xaw ma caaxaan xaw ma dara nekk ci sëriñ bi xam nga ful ak fayda ak café gi rek barki Sëñ Tuubaa Mbàkke ak nekk si may entraînement nit li naan li naan nit day am hygiène man de macha suñu borom may na ma ko mm-hmm. foofu ma sama ndaw de mm-hmm. waaw foofu ma sama ndaw de di Sëñ Tuubaa doon wax naan jox ma sa ndaw ma teel la sama man ci lay dox ba léegi wóor na Sëñ Tuubaa Mbàkke dinañ ci ñëw léegi ah di leen mm-hmm. nuyu ñoom bu baax a baax ku ci mel ni Tafa Mbër suma copain di ko nuyu ak Dame Sène ah, maa ngi koy béggee mooy bu baax a baax euh, mais euh, Ouza wax nga ko léegi neexul Ouza dafa am papa buy bëree wala maam buy bëree. bëree euh, lan moo tax da nga doon bëri. waaw bëri man aw maam buy bëri aw njaboot buy bëri. maam comme maa nga dañu ak moom te muy champion. Euh, bi muy bëree ñoo gën nekk tout tànk nag. mais comme am ak Tyson demoon naa. bañ jox ñu fi ay 110 keroog 10 heures lañ dem stade. moo tax ma xam làmb màng mu tëgg fi mbapat nag. mbapat mi neex loolu ma ne lan mooy mbapat ñu ne mbapat affaire bu bëri xam nga ñëpp bëgg ko jigéen ñi topp ko nag mu nekk ndaran dëgg billaahi wallaahi mu neex ma nag Ouza moo tax ma gën a bëgg làmb waaw billaahi wallaahi Tapha Mbeur bul yàq suñu émission ndax yéen ñëpp gis nañu Ouza 2 daal mel ni moom yow xam nga ne nga ndax booy dañ lay wër déjà yi Tapha moom dama ko wax dara damay bàyyi ba émission pare xiigi dina ko dal moom moom ba duma ko wax dara ma ngi lay char démb maa ngi lay woo ndeysaan di la yëgal émission mais euh, dañ may ki ngay woo mënoo ko jot pour le moment. Eh. loolu moo tax waaw mais maa ngi tubaat maa ngi tubaat bu leen ko euh, ñëpp xam nañ ni mhm. nga nekkoon. Uh-huh. mais tey yow sa mbapat. Mhm. bala ñoo ñëw écurie yow euh, nan nga dooree sa mbapat mu dooree. waaw mbapat moom daanaka mhm. fii laa commencé man maa ko tëggal sama bopp ah. waaw man ñoom Pape Mor Lo ñoom Baye Mor Gaynde ñu fi nekkoon ñu ëpp ñaari sabar laay rek. teg samay paquet suukar ak meew. organisé mm. ma ba bëri bëri wu. bëri ko barki Sëñ Tuubaa boobu maa ngi gën xale xaw ma dara. maa ngi doon jàng école nag. yaa ngi ñoom Pape Mor Pape Mor Lo ñoom ñëpp ndeysaan. Mm-hmm. waaw mm-hmm. maa ko bëggaloon sa bopp mm-hmm. waaw. Euh, Ouza moom bu fekkee nit moom da nga yàlla tax rek. Mbappane moom waxuma sax ma wax sama bopp. mais parcelle moom xam nañ ko Ouza numéro 2 ci Mbappane. toj nga bu baax. macha allah. foo toj. parcelle <laughs> waaw toj naa fépp parcelle moom fépp laa toj. Mhm. waaw billahi wallahi nekkul lu may wax loo xam parce que man li ma nit yaa ngi koy mhm. loo fekkee parce que boobu dañ ne finaliste ku nekk koñ nga jël yéen finaliste yi yéenay daje. man maa jël bu nekk 18 Modou jël xaw ma ban côté. Mhm. ñu yóbbu Iba Mar Diop. bi may ñëw ndeysaan maa ngi jàpp sax Modou di ma tooñ naan ma xaarim dem mboot bi nga mboot kee région dem Assane Diouf yéeme na maa ngi moom ñuy tooñante li may tooyanteeg moom rek dégg micro central bi Ousa numéro 2 Modou Lo lañ préparé ko Modou daa mel ni maag yow la de waaye lamb rek comme ñoo bokk parce que a gañ mm-hmm. mm-hmm. nekk ci yow mm-hmm. man dama ko mën ba pare mu nekk don ci man yàlla xam na ne Modou daan na ma mais ba tey maa ngi nii laay waxee nii laa bëri ak Modou ba ni ma daanee keroog léewtoo nañ parce que mën a yanu mu dem xar ma yenu ma bu ma yenoo ma jàpp di ventir li dóor ko gargal cag ci kaw dañu xaw dañu xaw dóor bëri waaw bokk hymne national mhm. def nañ fa un mois moo mhm. di daw buddi ma ma jàpp si njamb li mhm. dugal ko gargal mais xam nga daanaan la mu buddi ma ñu def cang fa deux minutes stade bi di yuux ñëpp di mabb mu teg ma moom war ko deuxième pied mu écarté crochet suma loxo jolal ma sama yëpp tax suuf keroog dama jooy jooy métti Pape Doumbia suma grand xam Modou xam na ko Modou rek la bëgg mm. ma ne ko xaari mënoo mën a mënuma lamb ku si nekk mënuma mënuma des na yeneen defet daanu moo fi nekk ak war a jëli serante mm. ci la xam ni Modou c'est un grand champion waaw Modou moom vraiment champion la c'est un grand ah, champion waaw allah mu nekk roi des arènes ñu koy mm-hmm. nuyuwaale au passage mm-hmm. euh, Modou Lo yow bëri nga kii euh, Pape Modou Lo waaw Pape Modou Lo su ma xarit la vraiment bën na ñett yoon nag mbapat seen mbapat fekk na ma fii 24 bi ñu kër Boy Naar Boy Naar tegal ñu ay tàngal mant keroog dama am moom ñoo bëri dem final daf ma yenu ba si kaw dóor suuf loolu nit musula boobu maa ngi jàng bëri ndeysaan maa moom jàng ba nekk ay xale ma tëggaan babat 24 après ma daan ko après ma tëggaan babat akapes après ma daan ko si lañ nekk ay xale muy 2-1 mais ñoo bokk lépp moom moom xiir dina ko dal parce que dégg naa ñëw na ba dellu gis moo ko mais dama ko wax dara waaw. beneen bi mooy yow euh, su ma juumul. dafa mel ni li nga fi lim yëpp ay groupe parcelle nga doon ngay bëre waaw mais euh, est-ce que génn nga. wax génn na. Hmm, comme bëreeg euh, ay ñi nga xam te ni par mhm. exemple ñoo nekk géejawaay. Mhm. kon comme genre ay ñoom Alioune Seye 2 xam nga. ay ñoom les deux parce que dama daan dégg ñoom dañuy mbapat. waaw Alioune Seye 2 waaw man non dew ma côté boobu. mais mus naa fa ñëw benn mbapat xaw ma ndax Balla Gaye moo ngi koy xaw ma déet. mais mm. par soo ma ñëw di pind ñu ma doo bëre. mais fekkee mbiri naa tas naa ko ay kay région daan naa ko. Mm-hmm. waaw mbir bëri daan na leen parcelle fii daanaka Modou Lo moom fi daan les deux moom suñu mag laay ñoom Alioune Seyde suñu mbakkaw ku baax la maa ngi koy ndeysaan taalibi sëñ Moussa kii mu kabro bi mm-hmm. waaw maa ngi koy ñaan lu baax a baax mm-hmm. euh, les bi ma ma fa kuy roy royal ousa numéro 2 am ma yar am may teggin jox ma saako bi neexal ma ko mm-hmm. waaw les de daan de sa mbapat boobu da nekkoon ci écrit dorit nekko mën ci écrit man dama doon nekk fii rek di bëri di bëri léeg-léeg Fass te nekk ma fa ñoom Ousa ñi nga xam suñu mag lañ ak ñoom Papa Sow comme yaa ngi bëri ci tur bi te ngay gars yi bëgg nga ñëw yow yemal nga dem fay bëri fi bëri naa quatre combats ren te a bëri nekkuma écrit Fass uh-huh. waaw mais a marqué ci say euh, mbapat moom demoon naa ba Papa li ma wax nee ma dem nañ ba tam doonit uh-huh. barki sin waaw mbapat moom macha allah li ma ci daanu ci àddina te ma jëm ëpp na 200 victoire de waaye li ma ci li ma ci daanu matul ngeen jël macha allah billaahi wallaahi nit moom sa te dëgg bi mais mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. naa xaw ma li xamul ndax sa bopp la suñu borom moo tiim nit ñi moo xam nit ñi sama tray ba may lay xaw ma dara ci àddina dof la moo xeer la Sëñ Tuubaa. Ouza de. Mhm. kenn du ne sa relation ak Ouza. ñu mhm. koy nuyuwaale. waaw Ouza waaw ah. mhm, ndeysaan euh, ñu gis ni nit soo ko tuddee sa bopp. di nga ko roy si jikko. lan moo la gën a neex ci Ouza tey ba nga ñëw. tuddee ko sa bopp. waaw Ouza li ma neex ci moom mooy dama doon dem këram sax ndeysaan dafa entraîné ay weñ boobu maa gën ni xale ñoom dama woon foofu saal c'est que seen kër mais li ma neex ci moom mooy bayfal gi ak oyof gi ak euh, doylu am sutura ba pare maa di jàmbaar di der ba pare ñeme entraînement. Mm. Ousseynou loolu moom mu gën a neex si ak xol bu rafet bi. Mm. xale mën na ko téye fii cinq mu nekk France suñu borom xam nga taw féexal ko def ko yokku vraiment parce que nit ku baax la. Mm. Ousseynou maa ngi moom duñ bëri sa wax parce que mbër. waaw moom jàmbaar la mais soxorul ko ndeysaan moo ko passé ñu leen nuyu baax a baax a baax. di ñuy dem père ba nga xamante ni vraiment. mooy suñu président écrit bu bees bi muy baax la mosuma barki Sëñ Tuubaa. booy yi nag. waaw ah, vraiment aussi gaspax de. Ah, pourtant non man de. non man du ma de gaspax de waaw moom xam nga rek ndeysaan. yéen ngeen nekk Fass Gayen. Mhm. jékki-jékki rek def seen benn kalaan. non non papa jàmbaar la papa fu mu nekk dañ koy topp. Mhm. vraiment moom. Ouza. Mhm. wax nga ko léegi. nee nga ne écurie Fass daan yàgg di bëre. waaw te boobu nekkoo écurie Fass. ñu gis ni su suñu xayma quoi. nga def 18 combats. waaw treize victoires. Mhm. trois défaites. waaw ñaari match nul waaw. waaw loolu mhm. mooy. palmarès mooy palmarès waaw. donc alhamdulilah. Mhm. sa premier combat. sa dugg ci euh, lutte avec frappe. waaw sa premier combat yaakaar la woon ak ban année la. boobu maa jam si estrom la woon boobu maa ngi bëri mbapat. gars yi di ma tëggal làmb ñoom ma leen mën fekk maa ngi toj naa parcelle bi nag ba mu jeex boobu ban ko waaw ay 2007 waaw 2007 waaw mooy sa premier combat waaw moom Jacques Diène nag moo doon sama ménager moom moo fayoon defe naa 30 waaw 30 000 la ma fayoon. jox ma jox ma avance 15 000 defe naa sax ngeen jël si 2 2500 <laughs> jox ma 12 500 yi yàlla na ko suñu bëri yoonu xarit wàjjana di sànn. 30 dama ñëw comme man sama maam laa xam. Mhm. te moom ma defal lépp ci àddina ndeysaan Ngoné yàlla na ko suñu borom yërëm xare ko àjjana ak Mbaye Fadji gi sama maam bu góor ak sama yaay Ndeye Fadji gi ak Alpha Wally Diallo ñoom ñëpp vraiment dama ñëw jox ko bi mu delloo ma xaalis bi nee ma dina am barke ndeysaan léegi ci dara jox ma ko ndeysaan ñaaral ma quoi. Mhm. waaw vraiment. sa premier combat. Uh-huh. ñëpp xam nañ ne premier combat. waaw li ci bari. Mhm. pour nga réussir ci. Mhm. day xaw a metti. waaw yow ñu ngi sa premier combat nga réussir ci ba nga ci bëree ba pare après am ndam. dama ci yow. sant man damaa teg li defe naa dix combats victoire. <laughs> soxna si ndaanaan la de waaw. mais na xam nga lan moo ma jaaxal ci Ouza. Mhm. Ouza yow da fan sa bopp. non non non nit boo waxee rek ne. Uh-huh. naanaan la déedéet maanaam nit sax du wax boppam. Mhm. mais tamit li nga def da nga koy wax rek xam nga nit dañ naan bul nëbb sa bopp. Mhm. mais li nekk rek laay laay technique ah. moo wér yàlla xam na ko parce fekkee du dëgg tamit ñi ma nekkal xam nañ ndax dëgg la wëru dëgg. waaw nit moom même suñu lay rey. del wax dëgg sëñ Abdou Lahad moo ko wax dëgg daal ba disco mooy di moom moo njëkk jox defe si calaf bi ma daw di ko boot sama tànk dugg si kàmb mm-hmm. cheville bi am problème quoi mm-hmm. ñu renvoyé combat bi ñu war a bëri waat mm-hmm. ma gaañu waat ñu renvoyé combat bi dernier moment nag man leen man leen bàyyi ma dem bëri lu ma am jël parce que temps yoo ay ngemb xaw ma ko man ba pa doon moon ngemb entraînement ful ak fayda bëri loolu quoi nga bëre dix combats dix victoires. waaw euh, sa cinquième combat. Mhm. lay commencé quoi yàkkan la woon. cinquième combat. Mm. parce que deuxième combat bi maa gaynde la woon. Mm, <laughs> gaynde daan naa ko. Mm. Ah. troisième bi defe naa maa Ousmane Diop bu ginnaaw raay ñu mag si nit waaw waaw bu ginnaaw raay. match nul mhm. quatrième bi defe naa ne maa ngi mortal caaren kaarakat mhm. te mu nekk yëmbal xama bun mhm. moom it daan naa ko waaw vraiment daan Modou Baye Fall daan Dem X daan Bathira Junior daan Fallou Niang oui daan Kéré Junior deux fois daan Jos deux maanaam daan Jéydaanu Pouy maanaam après du jeex quoi ah, aussi <laughs> waaw teg la ko léegi sama après Gaston dugal lañu ci calaf calaf bi ñoo ngi ma fayoon ñaata un million lañ ma fayoon defe naa un million waaw club bi waaw. mais bañ la fayee un million Ousa def. waaw xam un million duñ ko joxee nii dañuy ñëw jox la comme ménager bi. ci mbedd la hmm. koy def. waaw parce que man su ma demee ba xam fii kër gi la xaw ma dara as ndongo bu xeebu. mais di ma dem ba toll nii da nga ma xale ba léegi. Hmm. fii maa fi atteint ah, hmm. ah oyof rek taalibi. ku oyof suñu borom yëkkati la. vraiment. club bi yàkkan la clan bi waaw maag Jilaani Pouy la woon Jos mhm. 2 ak Kayre Junior waaw ma daan leen ñoom ñëpp ñëpp dajeeg Tijaan Faye final mooy poule A waaw poule B bi la woon kii la woon euh, poule B bi kii la woon Tijaan Faye mhm. ay Jaguar defe naa ñu waa Tijaan Faye Jaguar mhm. ak euh, Birame Nguer waaw defe naa ñoom la ak euh, Abdou waaw waaw Abdou ba nga duggee ci classe bi xam nga parfois di nga dugg ci dara ñoon kii day xar wala mais yow ba nga duggee ci classe bi yow lañ defoon wala ñi la doon waaw ku ma xam euh, mun na am nag joxoon nañu ko jëlaat puy parce que sooy seet moo ñu sut moo ñëpp te def moo kay junior matul 2 minutes moo ko ges 2 matul 2 minutes maa ngi moom laa ko fekk ndax daan ko parce que ma def daf ma dóor plaqué ma tëb écart tànk bi croché ko xam man dama gàtt te moom njool la man maa nekk ndaawam bi mor njool dama ko jolal bopp bi sam bu suuf juum jox ko victoire keroog Balla Gaye fa ndeysaan dama jooy jooy métti et set yëpp di mob mais une semaine après njool ma sam Euh, kalaf bi Maka région la ñoom ñett ñëpp ma daan leen. ok dajeeg Diedane fay final. poul bële poul bële. ok mu nekk ña te yéen ñaar da ngeen xaw tolloo. muy ndaana moo mag nag Tidiane ku baax la nag vraiment maa ngi koy nuyu bu baax vraiment am na yar am ay teggin comme vraiment mm-hmm. waaw. mais après combat boobu nan demee tey su ma ko sifflé woon. Mm-hmm. ma ne Ousa moom moo féete à gauche. waaw euh, Tidiane moom moo féete à droite. waaw combat bu nan ngeen droit la man pied gauche la man ragaluma ko jël sama tànk mhm. ñu daw léewtoo bëri bi yàgg dem nañ ba combat bi des ay cinq minutes defe naa parce que mi temps nañ mhm. waaw ma may ko sama tànk mhm. mu jël ma mais daanaan la a a ne loxo pour am crochement bi mais dama def nii rek mu naj ma ba serré ba pare écart tànk yi sama yaram mënut a jóg mu xaar ma bougé dama nii sama loxo rek mu arrasé ma ci jël bu rëy. jël bu rëy mu nit daan ci àddina ñu mm. la. Uh-huh. après bala kooñaa daanee. waaw Moussa lan la wax am nga mbetteel wala parce que comme da nga feebar. bu mag waa nga feebar. waaw après mbët daan la est ce que loolu tamit après mbett bett na la. jàpp woon dina ma dina ma daan. ndax lan foo ko teg. lu tax ma jël ko xam naa tax mën naa ko daan. boobu xam maa sama fulla xam maa sama fete xam naa ko ñaal mi mm. sooy seet moom dañu xaw a bokk bëri parce que mbëru wet la quoi njol la mais day léegi bi ma daanee ma xam ni daan na ma mais affaire ma lool mais man ndeysaan damay nit i jom après laa toog nit ñëw di ma seet si une semaine laa si commencé dem géej gars yi fàtte ko parce que man nit yi jox nañ ma jër ñëpp di ma ñaan yàlla ko dugal xam nga man nangu ko vraiment loolu la ah. sa bëtëri fay mhm. nga def cinq ans année blanche sa bëtëri fay uh-huh, Ouza xewi. <laughs> Euh. daanaan dafay xewi. Euh. te loolu lépp écurie la fekk. Euh. c'est yaa ngi ñuy wax sànq. waaw que ni Ouza 2 moo tax nga dugg écurie Fass. Ouza bu mag waaw. bu mag Ouza ñoom Papa Sow ñooñu fa yóbbu. sa dugg mhm. après bala Ouza yóbbu écurie Fass. Mhm. nan nga nekkee na ak ñoom ñoom Père Moustapha Guèye. xam nga ay ñoom Forza. waaw vraiment Papa Sow. Mhm. nan nekkee na ak ñoom. waaw ñoom vraiment joxante cër rek. man moom vraiment ñëpp jox nañ ma foofu cër moom vraiment. Mm. damay tar nit dina tar entraînement ñu dàq ko mais man su ma tar duñ ma wax dara te ñu dañ ne non mënuñu ko wax dara dafa yaru. dafa baax la lañ ko def. Mm. du ma ñu baax vraiment jox nañ ma cër. Mm. maa leen nuyu ñoom ñëpp vraiment vraiment ay nit ñu baax lañ maa leen a baax a baax. Mm-hmm. waaw mm-hmm. am na lu ñu ma am na lu ñu waaw waaw xam nga man nag bëri fii laa ko jafee lépp mais Fass dolli nañ ñu lu bëri. Mm-hmm. ni ngay taxawee bul may lii man Ouza bu mag dama mën a wax xaari may lu la neex kenn du la parce que xam na ma fekkee ne sama entraînement fekkee ne sama mbapat. Mm-hmm. def na ñu bëri nag def nañ ko si ñun parce que nit tamit mënoo nekk nekk fenn nekkatoo fa rek di mm-hmm. nii te papa suñu mag benn yoon daal laa mos ànd ñoom papa soo fekk rek ñoom fa am face këram ñu dem fa mais man mosuma sax dem këram ndeysaan mais entraînement daal dinañ daje. jox na ma cër dina ma tooñ seen xaadim Baye Fall bi. ñu tooyante jox na cër vraiment. mais boo amatee combat sax daaw ñëw. Moustapha Guèye waaw man nag mosul ñëw fi mais Gris Bordeaux mos na fi ñëw moom. waaw Gris moom bis naa bëri maag dem si mu ñëw fi keroog kontaan trop xam nga nit soo nekkee xale yi. Mhm. ñu nekk fenn am ci bis. Mhm. ay mag taxaw di la taxaw di kooku da dooleel. Mhm. mais du baax. waaw vraiment Gris bi mu ñëwee fi moom kontaan a trop. waaw Gris ñëw na fi Papa génn bi mooy Papa Sow rek suñu mag. non avant Papa Sow Ousa. Euh, waaw avant Papa Sow di di créer Jàmbaar Wrestling ak. waaw Papa Sow daan dem écurie Fass. may ànd ak moom. waaw mais yow après gisatuñ la. waaw boobu.

nit daal di nga yéene bopp soo ko yéene di am jàmm man daal foofu laa wute. mais Fass loo fa génn. fa génn nag musuma fa woon génn mais comme papa dafa génn. dañuy ànd moom génn ah. dem de mais maa doon naa ñëw ay entraînement léeg-léeg du ma ñëw. Mm. mais papa mu jëlee Ama Baldé doon naa ànd ak moom foofu di chaque jour moom mooy jël si fii oto maa ngi sa. ñu dem fa mm. mais après man si laa fa gëj. Mm. di toog fii di entraîné sama bopp. parce que tamit am cër dafa am solo. sëñ Blaat nee na nit même suy dem aras sëriñoo su ko waxee dëgg waxu ñun am lu ñu defar face tey sooy seet ñu fa gën palmarès bëriwul. mënoo bëri 18 combats am 13 victoires 3 défaites ñaari match nul kon bu baax la. nit maanaam da nga ko jox cër yëg ko quoi. léegi nga jékki-jékki ah suñu xarit foo nekk mbaa yaa jàmm mais nit fekkee woowu la yëglu la. day xaw a waar. waaw Fass yëgul. du ñëpp nag mais ku mel ni Guèye Camara su ma xarit la moom daf may woo téléphone. Mhm. wax vraiment ay per sec dañ may woo téléphone. ñu diggante mais ko ŋànk. waaw xam te ne tey ñoom. Mhm. jox nañ ma cër moom. parce mhm. que vraiment su fekkee am naa combat su ma ñëwee wax nag dinañ ma jox seen ñàkk jox ma. ku ma si gis vraiment dañ ma jox cër boo xam te ne daal. jaaxal na ma. loolu non ñun faas du affaire yi ci kaw di ci mbër gi la rek. ci mbër gi la. mais waaw mais man entraîneur yi amoo ñoom benn problème aw parce que làmb kenn xamul kan la ñii mën nañ gunge wekk yi mooy mbër mi kenn xamul mm. mais li nga yéen sa bopp daal a ko yi dee ko yéen nit ñi kon su ma jumul daal mhm. dafa am loo xam te ne la waaw ñëpp giri pour mm. mooy a dugg affaire yooyu non ñoom maag ñoom suñu booy lañ jàmm lañ seq mm. ay lëgro suñu xarit la ñoom Maodo ñun ñëpp ci lañ seq suñu menu ñaar lañ loxo luñ menu mais Ousin ñun du ñu nax. waaw xam nga nit mënul nekk ci benn écurie. waaw ñu la fay tàggat. Mm-hmm. nga def fa nekk nekk fa nekk jékki-jékki rek. croiser balaa toog waaw toog am na loo fa métti loo xamante ne lay wax looy tax nga toog. waaw toog naa mais papa doon na dem. Mm-hmm. parce que moom génn foon. Mm-hmm. mais comme ñoom ak li ko def. ah papa dina dem nekk parcelle may may dem toog Fass. lan la may wax man avant papa daal di fa nekk. Ah. di di fa mhm. gis nañ ni waa Fass da ngaa gis ne yëgatuñ la waaw nga toog croiser ba jàpp sa waaw fii laa toog nekk fii di entraîné yoo sama kafe gi fii mhm. entraîné nekk ci kafe gi du ma génn koñ bi nag man ñu bëri nañ maanaam xamoo ci àddina dara parce que du ma génn fii ah mhm. man lu dul fii ak Touba Gris Bordeaux Modou Lo dañ laa waaw am na erreur bu ci amoon waaw xam nga Modou Lo dafa nekk nit ku baax mais yàlla day dama koy gis Modou ñoo bokk équipe nationale ko benn la man la woon Pape Modou Lo Modou Lo ak Forza mais ñoo ko benn néeg un mois Modou mais après dama koy gis ni san temps boobu nag moo ngi di bëri ay Papa Sow xam nga ñun Papa la ñu nekkal nag mais bi mu demee ba jàmm am na ñun ñëpp dañ nekk mais benn jour sama boy bi ay dara maa ngi koy nuyu di san euh, <laughs> xam nga euh, ñu dem euh, Espoir suma benn grand jóge Espagne di ma may benn protéine pour may ma ko ñu dem ba station foire maa ngi yor sama deux roues dañuy gaar rek ma gis oto Modou Lo taxaw ma ne ko oto bi oto Modou Lo naa koo gis te xam maa ne su ma gisee te mu wàcc fi di mu nuyu te day bëri Gris Bordeaux nañ bàyyi ba mu dem ma soog a dem. billahi wallahi waaw noonu laa def. bi ma defee noonu après ma xëy après Papa Sow woo ma la ne gis ak Modou affaire ma ne ko xam sax moom papa. moom xam na lu ma mel. mais après bu may ñëw ma gis affaire nu muy xaw a kii bi. ah ñu ñu lay kii quoi ñu lay pousse. non kenn waxuma dara. mais nit yaay xam. Mm-hmm. boobu maa ngi préparé ma ko mag Marley. après ma toog. di entraîné fii moo taxoon combat Gris Modou dew moon te xur naa tuumaal nañ ma mais ndeysaan après Gris gis na ma ne ma xaar mën na ko naam mënu ma yow amul ku mel ni yow su fekkoon beneen booy lañ ko wax ma gëm ko mais yow moom du ma ko gëm waaw xam nga naan maa muur ñëwaan une heure du matin sëriñ te yooyu yëpp dara amu ji man sëñ Tuubaa la gëm man ma def loolu kon lool fekk loolu na tamit lu gën a tax tamit mhm. nga kii nga toog ndax non après doon naa ñëw après toog naa nag ma nee ah, ma am ndam après ma ñaanal ko ndeysaan mu daan Tyson. parce que xam naa la ñaar de. pour hmm. yàlla yombul de te nit ki nga xamante ni maanaam musta mu yàlla su taxee ñaan suñu borom suñu borom mën na ko def. Mm. barki sëñ Tuubaa Mbàkke. Mm. pour yéen ñi ñuy mm-hmm. ki nga xamante ne moom mooy ndaanaan Ouza 2. Mm-hmm. dégg li nga xamante ni moom mooy mbapatam. Mm-hmm. ak li nga xamante ne moom mooy enfance am relation am ak ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux. ak li nga xamante ne moom mooy waa Fass. nga nekk jàmbar wrestling académie waaw. mais avant nga fay ñëw. sa mhm. lampe dafa fay maa ngi la koy wax sànq. Mhm. nga def cinq ans année blanche. waaw cinq ans mhm, la ko dundee ak lu waral loolu. waaw lu si bëri si man la barki sëñ ki Mbàkke kanji moom dama koy nuyu quoi parce que su ma xarit la saa yu bëggee tëgg dina ma tëgg parce que sama sëriñ euh, euh, sëriñ bàyyi la moom.

mais dem ba ci biir am ñu ma ne waroo bëri moom soo ko jëlee duñ dem loolu taxoon ma dem kër cànj ndeysaan maa ngi booy amita àndoon dem di ko jéggulu ne ko man la maa ngi di jéggulu combat bi ma ko mën na solo def lépp mais ci man la mhm. du ci ci du moom de ci man la de mais est-ce que tey jarul waaw ndaanaan nga mhm. ñëpp xam nañu ndaanaan nga mhm. xewtoo euh. nga jël. booy. waaw pour mën a relancer wu. ñu xamaat ne Ouza mi parce que am na booy yu bëri. dañ laaj. waaw waaw du jox booy yooyu seen chance. non man bañoo bëri kenn de. lamb léegi fu mu toll nii su loolu Papa Sow du bëri Siteu Papa Sow moo raw Siteu Siteu nag mbooloo moom mën na ko bëri sax Balla Gaye Siteu mbooloo moom mën na bëri ku nekk ci lamb mais Papa Sow mën na bëri mais tey dafa jëli Siteu parce que fay nañ lu ko jaral tey man bi ak li may entraîné nii coronavirus bi moom ñoo ko ñaanal mu gaaw fi génn mais su nga suuf gaaw jugee man combat bu ñu ma jox barki bi Serigne Touba Mbacké dinaa ko dem jël bëri ji daan ko ñëwaat parce que man xam naa li ma daj benn bëtu ko daj mm. waaw wër na Serigne Touba sa jëw bi Mhm. sa jëw déggoo ko. man déedéet. ñu bari dañ ne Ouza. Mhm. dafa commencé retard. waaw te am na ay say morom yoo ne mhm. instant bi ñu ngi immigré ji. waaw bi dem dem kii parce que ñi nga waroon a bëri. ñu bari waaw def nañ gars yi nee nañ mooy loolu fi nekk. waaw na ñu bari ñoo xamante ni du ñu wàññeeku pour bëri Ouza. waaw pourquoi doo immigré ji comme les xam nga ñooñu def ko ñooñu suma xarit Mamour. mais jëw waaw waaw non. yaa ngi la tukki. ñun ñëpp mooy suñu xel. mais app la suñu borom moo ko dogal si nit. tey bëgg naa ko dem États-Unis ñëpp. ma koy ñaan waaw waaw mais xam naa dafa jotagul rek laa ragal. xam naa damay nekk fii liggéey sëriñ bi rek ba si kanam. Mm. parce moom mooy moo ñuy moo ñuy mooy programme mm. tey ne xarit bi tu génn mun dara. Mm. tey bu ne fii lay toog fii lay nekk ci café gi fii lay nekk. mais man dama bëgg làmb bëgg sport am suma benn mag moo ngi Ferland maa ngi koy nuyu baax Pama Sène jëndal na ma oto sax pour ma ba tey kenn xamul moo xam mais nit daal na nga am sa gëm mhm. mhm. maa ngi sant yàlla parce que man euh, damay dund sëriñ bi te sëriñ Tuubaa soo koy dund àjjana la mhm. man tey suma guddi àjjuma damay dem ci kuréel ñoom siñ taale mi nekk ci kuréel xasida yi du ma toog kuréel nag mais maa yor café gi mm. ku kuréel ma jox leen ngeen barkeelu mm. bég boobu mooy bég àjjana boobu mooy bég man daf mooy dundal day dal sax ay làmb sax mm. dina nekk sama xel nag parce dama ko bëgg mais damay dund sëriñ ba yenn yi sax ndeysaan dama koy xaw a teg tegee nee ma dara parce que am naa sutura maa ngi lekk maa ngi naan ñi di jox nañ ma cër ñu gis ni yéen. Mhm. waa Fass. Mhm. xam waa Fass moom Fass moom dafa yàgg bari kalam. waaw ñu gis ni yow la woon. Mhm. Batika. Papa Sow. mooy yéen ba du Fass dëkk parcelle. ay bu mag. waaw ainsi de suite. Papa ñëw. waaw ngeen ñëw ànd ak moom. kalan boobu noonu. ndax kenn ku nekk du kalan sax. mais kenn ku nekk am nga ñoo xam te ne ñoom ñooy. sama groupe waaw loolu la. léegi yéen ngeen ñoo topp si waat. Papa Sow lu waral loolu. waaw parce que Papa euh, ñun suñu kilifa la ci làmb. waaw saw maa ngi koy nuyu nag bu baax a baax barki dem rek moom may woo téléphone gëj gis lool ndeysaan léeg-léeg liggéey bi may nekk moo tax day xat ba entraînement yi du mu mën a régulier noonu di do di leen topp di yooyu loolu rek a tax mais maa koy nuyu baax moom suñu kilifa la moom Ouza man Ouza la tuddee sama bopp Ouza moo tax ma xam foofu tey ba xam ñoom papa xam papam père Aliou xam ñoom père Ba nga xam daf ñuy yàgg jàppale papa fu mu nekk

écrit bi macha parce que gars yi ni entraîné doon préparé combat ak Siteu di ko ñaanal suñu borom ak feebar bi am yàlla na ko su yàlla defal ndam ba feebar bi jóge fii papa ñaan ko yàlla suñu borom dafa ko ndam moo ci préparation yu baax nag vraiment moo ngi liggéey vraiment daj ay coono yoo xamante ni moom yàlla na ko yàlla fay coonom dafal bu neex la parce que Siteu vraiment maa ngi ko nuyu bu baax moom borom baax la te la ko baax la waaye Papa Papa Sow dama ko gis roykaay la amul caaxaan ci soxnaam lay Mame Fatou. Mm. noonu laa ko xamee parce nit tamit da ngay seede ni muy doxee boog man ni ma ko gisee. Mm-hmm. noonu ci fulla ak fayda lay doxee moo tax moom ku koy roy te mënu ko roy ci loolu. gàtt na tànk maanu na ba pare gis naa daal am na sérieux ci entraînement mm-hmm. ku koy roy da nga ko roy ci loolu Papa Sow waaw waaw moom Papa Sow euh, ku baax la ñëpp jox ko cër waaw ak suma grand la bëgg su xool ak nit day bëgg sax mu xool ak nit maa ngi koy nuyu baax a baax <laughs> ko yëg xam naa dina ma duma kan Batika Batika maa la wax ni moo ko soosee sama xarit su xool ak nit day bëgg nga xool mu xool ko ne bële ñeen duñu xool <laughs> dégg maa ngi nuyu baax a baax baax kenn du Fatick moom kay fa mu nekk bés moom moo ko yore moom. waaw ah, waaw kenn <laughs>